salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa diaspora maa ngi tudd Serigne Fallou Gueye jànge Allemagne jàng science politique ak relation internationale dund Allemagne lu yàgg liggéeyee fa bañ affecté ma fii waaye li may nekk Sénégal Sénégal yëpp li may nekk almaañ yëpp sama xel ma ngi Sénégal bi ma ñibbisee ma ànd ak ñii nekk sama ginnaaw ñu créer benn mouvement bu ñu wax jëriñ sa réew jëriñ sa réew commencé si dongo daara yi di leen jàppale si wàllum wér-gu-yaram wàllum yére yu ñu sol dàll yu ñu sol fóotum ndong yi di leen defal ay mbaar lu bëri ci Touba gi nga xam ne mooy suñu baas ndax Touba lañ dëkk di jàppale tamit pédiatrie yi jàppale tamit néewti doole yi di def des saction de solidarité ci biir Sénégal néew doole yi nga xam ne amoon nañ ay ordonnances mënuñu koo jënd am ay analyses ñu mënta def def nañ ci lu bëree bëree bëree bëri mooy le mouvement jëriñ sa réew li tax ñu tuddee ko jëriñ sa réew mooy ñun dañoo bëgg a jëriñ réew mi bëgg ñëw jëriñoo réew mi ndax citoyen boo dëkkee sim réew da nga koy jëriñ doo ko jëriñoo mouvement jëriñ sa réew continuer ci loolu bi mu demee ba si biir mu yokk si jigéen ñi ndax jigéen dafa néew ci doo dafa néew dafa néew doole su ngeen gisee li waral loolu mooy jigéen ñi daañu woon jàng métier bu njëkk da ngay mën dara rek daal fekk sa yaay sa waañ ba jamonoy dox di dox di dox ba métier yi bëri mouvement jëriñ sa réew gis ne jigéen ñu senegal yi soxla nañ ndimbal si côté xam-xam côté métier ñu commencé di leen former si transformation meññeenteef yi nga xam ne ñoo am Sénégal ba ñu mën koo jëfandikoo ba nga xam ne dépendance bu Sénégal war am si beneen dëkk war naa mën a war naa mën a jeex ñu def wan leen ni ñu defaree façon saabu yu bëri. xam ne ñoom dañ koy soxla chaque jour lu mel ni céréales dugub mboq koko gingembre lu lu mel ni ay jus loolu ñu defal leen ko ba ñu mën a demal seen bopp mooy autonomisation économique de la femme ba jigéen ñi mën demal seen bopp mouvement jëriñ sa réew nag liggéey si lu bëri si Touba gi nga xam ne ñun fa lañ dëkk ay junni junni jigéen formé nañ leen foo jaar tey nit ñi bàyyi nañ boju gerte bàyyi nañ tamit liggéey bu mu metti yi nga xam ne da nu waroon a affecté seen wér-gu-yaram ëllëg si biir foo jaar si biir Sénégal ak lu mu sori sori sori sori mouvement jëriñ sa réew ak ay formatrices am dem nañ fa dimbale jigéen ñi dimbale ndaw ñi. ndaw ñi aussi def nañ ay formation sécurité ndax ku ne jigéen ne ndaw kon mouvement jëriñ sa réew contribuer na li si li mën si développement Sénégal biñ demee ba ci biir. ay nit yi nga xam ne gis nañ suñu liggéey ci développement gis suñu liggéey ci social ñu ne ñu yéen nag dangeen ngeen a war a bokk ci ñuy diriger Sénégal kon ñoom ñoo weñ suñu loxo ba ñu dugg ci politique ñu dugg ci politique ñu créer coalition coalition mu ngi tudd rassemblement des démocrates panafricanistes maanaam kuréelu démocrate démocrate mooy ñi nga xam ne ku ñëw rek accepté nañ la ak noo mel ak nooy xalaatee accepté nañ la panafricaniste mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg Afrique doon benn ba nga xam ne ñun ñëpp dinañ boole nekk comme Union européenne wala mel comme États-Unis ñu liggéey ci loolu ba moo tax tey ma taxaw fii tey yor baatu coalition bi di yëgal waa Sénégal yëpp suñu candidature ci élection présidentielle 2024 incha allahu rabbi jërëjëf